voilà ah. jaay nag yeboo ma ñaari ah, xam nga si bëccëg gi ngay nekk si de waaye bu ñu yeggee si biir dootoo wax mais ndax dégg nga awal naa ko eh, yow dootoo wax waaye wax na yow xool odu waxee nga oh, ne oh, guddi léegi sax yàlla lay leer ba fa yem ah.